jëfan leen bu baax ci ànd bi ngeen ànd ak seen site internet bi di Buzz Actu 221 li gën a fës ci bopp xabar yi dañu koy door rek kii di maître Doudou Ndoye mi nga xamante ne daal dina yëkkati kaddu rek jagleel ko kii di président Bassirou Diomaye Faye moom Doudou Ndoye la mu daal di xam ne rek moo di moom ci jëme boppam rek amul doole di arrêté nag lépp loo xamante ne rek tabax la ñeel li nga xamante ne moom mooy procédure bu domaine ak ay foncière moom ancien ministre di Doudou Ndoye Doudou Ndoye daal dinay génn rek ci patt pataral bi nga xamante ne nekk defoon na ko ginnaaw ba chef de l'État sàkkoo rek ñu daal di dakkal lépp loo xamante ne liggéey la ci wàllum littoral ba tey bu ñu sukkandikoo ci moom ne la kii di président Bassirou Diomaye Faye amul benn yoon euh, pouvoir wala sañ-sañ nag di arrêté tabax yi nga xamante ne rek euh, ñu ngi ko doon amal ñeel domaine bu foncier moom président de la république ko daal di waxee rek ne la nag ci temps Macky Sall moom ci jëmi boppam da ko waxoon ne ko nag nekkoo loi kon nag dogal bi nga xamante ne daal na koy jël rek ñeel li nga xamante ne rek moom mooy dakkal yooyu lay tabax nekk na mbir moo xamante xamante ne rek nekkul question personnelle waaye question respecté lii di démocratie ak état de droit kat yu di xamle ba tey moom avocat bi ma ngay daal di insisté waat nag ci dogal bi nga xamante ne kii di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal dina koy jëlee na nag kenn munta nag jël décision bu nu mel di arrêté lépp loo xamante ne rek ay tabax la yu ñu autorisé ba noppi rek ñeel cadre bi ak loi ak règlement bi nga xamante ne ci la nekk ne nag position bu nu mel nag faw ñu indi ci ay leeral wala ay débat mu gën a gaawee ndax nag diggante pouvoir exécutif ak législatif importance bi nga xamante ne daal dina koy am daal mooy ñu respecté lépp loo xamante ne rek état la bu ko defee ñu soog a jël lii di ay yenn dogal yoo xamante ne rek dogal gouvernemental lay jukkandikoo lay jugee bu ñu sukkandikoo ci kii di maître Doudou Ndoye dana nag gouvernement bi ci jëmi boppam rek war na respecté lépp loo xamante ne procédure la bu ko defee rek mun a garantir kaaraange ci wàllum justice ak lépp loo xamante rek nekk ci politique la jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bés cloche notification yi ngir mën a am yeneen i xibaar